sur le salaatul tasbix waaw ci salaatul tasbix daal la bëggoon nga ñëw jërëjëf alaaji Pape xam nga salaatu tasbix mhm. julli la boo xam ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf ko waxoon ku ñuy wax abbas daf ne ko abbas xanaa bëggoo ma jox la julli boo xam ni soo ko jullee yàlla jéggal la say bàkkaar ba pare defal la xéewalu àddina defal la xéewali alaaxira abbas ni ko julli buy tax yàlla baal ma samay bàkkaar kenn gënuma koo soxla yonent bi ne abbas jox naa la ko jox naa ko sa xeet mm-hmm. ñu ne ban julli la ñu ne mooy julli bi nga xam ni ñaari rakka lay doon soo koy julli dangay jàng fatiha ci saar bu la neex waaye boo taree saar yu ba pare alaaji pap danga naan subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar loolu nag pap soo kabaree danga koy wax fukki yoon ak juróom ci kàbbar bi ci kàbbar bi waaw boo defee allahu akbar ba wàcce say loxo waaw ok ci nga koy wax quinze fois quinze fois xoolal pap nga rukon mhm. wax ko fukki yoon سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر nga siggi waxat ko fukki yoon dem sujjóot wax ko fukki yoon siggi ci sujjóot bi waaw siggi ci sujjóot bi wax ko fukki yoon sujjóotaat wax ko fukki yoon manam démarche yi ngay def yépp budul dul taxawaay bi fu ci nekk 10 la mais heure boo taxawee 15 la yonent bi alayhi salaatu salaam daf ni woon képp ku ko mën ci sama xeet sag weer na ko def soo ko mënul sag weer at mu nekk na ko julli benn yoon soo ko mënul sag at yonent bi nee na rikk waaye ci sa dund julli ko benn yoon kon pap yaakaar naa salaatu boo xam ni day tax yàlla bàll say bàkkaar mm. ubbi say bunti xéewal salaatu boobu alaaji pap jar naa def te mooy salaatu tasbiix mi ngi noonu alaaj Pape comme ñoom ñiy seetaan lépp la ñuy seetlu am na ko ne waxal Modou Fall mu teggi mu yëkkati kaamil bi ci suuf kaamil dafa am lu ko protégé maanaam kaamil baa ngi ci biir. kaamil baa ngi nii Pape tegu ma ko ci suuf man daal xam naa nag ren lay arrêté quatre ans daal de. xoolal Pape mujjee sonn. nee ko kaamil kenn bañul ku ko teg ci suuf. kaamil dañuy bañ ku ko teg fu am sobe. waaw kay te fii ñu ko teg.